toxluwuñu ay wax jeex na. Mm-hmm. liggéey rek dañuy xaar. liggéey rek merci liggéey rek te moom tey mm-hmm. am na ay charge yu lu lu koy xaar. oui ci lan courant bi nga xam ne tey boo dugalee vingt mille franc wala nga dugal waaw soo toogee ñaari jour mu moom mu commencé xonk. mu commencé mu commencé di jooy. di jooy di jékki-jékki commencé. di te te te rek bu dul jeex waaw. voilà ça veut dire que tiital yóbbu fitu Sénégalais yi. ak suñu contrat yi nga xamné tay ci énergie bi. amna ay sociétés yu ko yu ko yu ko yu ko yu def ay signature yo xamné tay tay c'est à revoir. ci contrat yi nga xamné def nañ ko ak état bi fi oui ñu xol ak nax sénégalais yi am nañ ci intérêt ou pas. oui mom lu attente boobu mo koy xaar. xam nga tay wax jeexna te tamit euh euh tay poste biñ ko tek waaw en toute sincérité euh dañ ko dañ ko fa tek

ak rigueur. oui te génnee làmmiñam ci sport c'est pas le ministre du sport ni hmm. porte-parole du gouvernement. gars yi yéen a déggandoo ñun ñëpp ñoo déggandoo Gris man nag dama ci am mbetteel ndax je pensais que ni buy am reflexion bu mu ciy def dina uute ak bi dof yooyu def. ndax ils ne sont pas des voix autorisées ci làmb muy Fadam 2 ak Daf boobu ak euh, Bourgéwel ak ak ñoom Dioudiagne Diekkoog ay Ngañ Diagne ñooñu tekkiwuñ dara si làmb ay kat lañ rek ay dóorkat lañ seen bopp molen leen teg ci làmb seen bopp la manam dañuy use làmb pour sen bop. dañuy tok di wax muy dox liggéeyuñu dara. mais Gris Bordeaux en tant que président des lutteurs en activité n'est que quoi acteur nga ci làmb bokk VIP isma dégg nga dégglu lu birom sulay job wax amo ben analyse bo ci def budul bi te sax li ngi ci wax bari na ginaaw ba nga lo gouvernement bu bes bi mais yow su doon sa taxaway kese kese lay laaj ak taxawaayu sa mbok vip yoyu tay ji régime bu bes du fi am Nak yeen pare won ngeen pour jappalé Macky Sall ci 3e mandat askan wi bis bu ñuy gën di dé di gën di sonn bis bobu la leen Macky Sall yobu pale ngeen di fa fecc ndaw kon yeen Gris Bordeaux yow ci sa bopp amoo perception bi nga waroon am ci wax ji parce que wax ji ni nga ko analyser yaak ñoom Fadam yene yam ndax Gris Bordeaux euh, Birame Souleye waxul dafa bañ làmb waxul dafay interdire làmb waxuñu amuñu ay ay ay projet pour làmb waxuñu projet bi làmb bokku ci dañ ne ñoom ñi yor ndomba tànk yi di doxal nañ leen bàyyi ñu liggéey kuy tuddee na nga tuddee Sénégal ñoom buñ leen tuddee dara te waxul làmb kese wax na football beeg yëpp pourquoi yéen kese ngeen jóg parce que dangeen a jàpp ni seen àdduna nit yi ñoo leen ko war a defaral kemaande ñaan saraxu ba ci yéen mbëri mag yi pour yéen seen àdduna ñaan la toog di ñaan pour yéen seen àdduna tant que nit jàpp ci yéen du ngeen tekki mbër rek laa gis moom pour moom dañ koo war a jàppale muy doog a tekki dañ ko war a jàppale muy doog a am lu baax kon Gris perception bi nga am ci wax ji maa ngi doon xaar nga waxee fi buzz, bu Lutte TV ngi koy félicité bu baax kooku borom xel la buzz am perception ci wax ji même bu dee wax ji am waxu Birame am lu mu ci ne suspicion teewul gis dans le bon sens recadrer les troupes yow loolu lañ doon xaar ci yow te buzz dafa investir si lamb moom mooy borom pay view mooy borom Lutte TV yor alalam ci lamb, di ko doxal jël lamb ñëw fekk ci benn ñëw fekk ko fenn yóbbu ko fenn ci amul leen xam-xam moom bi mu waxee ngay xam ne bës mi boroom xel la yow ñu lay xaar foofu pour nga wax ak mbëri ñu am perception ci li Birame Souleye wax waxul dafa bañ làmb waxul bëggul làmb waxul du autorités yi du ñu def ci làmb maanaam waxuñu làmb amul amul cër ci projet bi waxuñu loolu mais dañ ne ñoom autorités yi ñoom ñu jiite làmb comme ni ngeen ko daan defee bu njëkk nañ ko arrêté léegi nag ma ñëw ba nga ñëw ci say revendication yi nga def nee nga Birame Souleye pour rek nee nga da koy jéem a recadrer pour wax ko li nga xam ne moom mooy ay priorité am yow

mooy da ngeen di jël association bi politiquer ko politiciens yi ñëw di leen nguur gi ñëw ngeen di jël ay carte d'identité ni ñu naan leen dañ leen defal ay kër dañ leen defal ay néeg dañ leen defal di leen nax tey ji yow revendication yi ngay def jàkkaarloog nit ñi naan biram Souleye na wax ci courant bu cher bi na wax ci contrat yi ko pétrolier yi ñu signé woon moom loolu mooy cëram mais yow am nga occasion occasion bii nii bi nga ko amee lu tax waxoo ko Macky Sall ngeen dem palais mais da ngeen fa nekk di fecc ka way occasion bi nga am banko ame ko amé ngeen jakarlo Macky Sall lutax waxo courant bi cher na wañu ko xana tay la courant bi dogo cher lutax tax ko ni contrat pétrolier yi ngeen signé nekul à la faveur de la population xoolaat leen ko tu ne l'as pas dit et pourtant dem nga ba dié ko so soxla wax nga seeni soxla ñu jël alolu askan bi jox leen ko ngeen pare pour and ak mom pour mu ray askan bi pour togaat fi tay nga mëna am patriotisme jakarlo nit ñi naan nañu xoolaat courant bi cher nak ay pétrole contrat pétrole gis nga may leen ñu jàmm yéen dama leen wax ni yéen a war di mujjee wax tey një tey tey njëkk a noppi seen wax war te bëri wala bu ngeen wax ngeen wax waxu nit is ma dégg yow waroo jàkkaarloog nit ñi di revendiquer courant bu cher te régime bi ko fi def yaa ñoom a àndoon fii la ñu ministre euh, ministre de la justice Malick Sall saaga ndey taxaw ne mbeuri ñoo taal dekk bi mois de mars nga juk ne dañ koy porter plainte ñu wo len yeen ak ñom Bécaye mbay ak yeen VIP yi ngeen dem ñu ger len xaalis ngeen jaay combat bi man loolu mo indi sama problème ak yeen parce que ma nekkon ci association bi j'étais le porte parole ngeen écarter ma parce que da ngeen di dem di jaay ay combat di jaay ay xex ministre de la justice taxaw saga ñu malik Sall France 24 ne ñun ñoo taal rew mi mois de mars parce que amuñu combat yow en tant que président lutteur nga taxaw ne dang koy porter plainte ñu wo len seen bureau yoy ger len ngeen jaay seen ngor tey du yow yaay jàkkaarloog ñun du ñu wax waxu ay làmb ngay làmb ngay sauver ay làmb ngay waxal waxaloo làmb ci sa bopp nga nekk. parce que ba nga nekkee président des lutteurs ba tey amul benn acte boo posé pour les lutteurs mbër yaa ngi toog ci télé yi di commandé di ñaan barki démb la maama Lamine wax ni yaayam vingt mille francs moo tax mu génn àdduna ndax ñàkk di jooy ne bàyyi na làmb bàyyi na benn nitu làmb. yow yow association des lutteurs ci am as mbër ci am euh, li xam ne mooy carte de membre matuñu cinquante personnes. te yaa yaa waxal sa bopp yaa plus de plus de huit mille licenciés kon yow am na liggéey bu war sëkk boo war a def lu dul nekk fi di tontu Birame Souleye Diop mi nga xam ne ay principe am ak gëm-gëm ak li sénégalais yi bëgg parce que sénégalais yi ñoo bëggatul benn autorité di pasar pasare alalu réew mi ñoo bëggatul kenn ku am domba tànk di tal leneen lu dul liggéeyal réew mi moo tax ñu votel projet de rupture bi kon tuddee làmb boobu muy wax ak yooyu yëpp caaxaan la taaxuraan la kuy tuddee tuddeel Sénégal ñoom dañuy liggéeyal Sénégal daf leen bëgg wax ni moom dafa wàccee boppam sax daf leen bëgg a wax ni ñoom seen jëmm amul njariñ Sénégal moom am njariñ kuy tuddee ni nga tuddee Sénégal yéen nga war a am gis-gis bu dégg-dégg ba nga mel ni Fadam 2 nga toog nga déglu wax ji biram su lay wax nga bañ a analyser dans le sens que Fadam fu mu nekk ak ak nga xam ne fu mu nekk mooy dof boobu buur gi nga déglu bës sax boo déglu woon sax di nga xam sa analyse nan nga koy tegee Birame Souleye il n'a rien dit de grave ce qu'il a dit loolu ngeen war a gën a tàccu parce que promoteurs yi ñàkk ay moyens moo tax ñuy wër ci bureau euh, euh, bureau autorité di commandé di leen tuddee ay làmb dem na ba mbëru làmb yi ñun dañ ñuy wax ko ci am parrain bu mën a jënd làmb ji ñu tëddu tëggal la mbër yi dañuy am parrain uti parrain xam naa ci dara ak ñeneen ak ñeneen dañuy dem outil ji parrain ñëw promoteur bi ne leen am naa parrain bu mën a jënd làmb ji jënd billet yeeg lépp nga soog kaa tëggal mbër mi mooy tëggal boppam wala mbër mi jël xaalisu boppam def ko ci làmb ji léegi nag suñu leen waxee pare ametul dinañ organiser làmb ji ba telle sorte que dootul demee ni mu demee CNG di jël alalu mbëri yéen ngeen nekk ay VIP pendant dix ans yeneen mbëri di taxawaalu du dee duñ am dara seen yaay di feebar duñ leen faj ñoom mbëri ñu leen di dagg assurance te kenn du leen faj lan nga ci wax. ñaata at laa nekk di kaas pourquoi ñuy dagg mbëri assurance CNG di leen dagg assurance te duñ leen fay te buñ feebaree duñ leen faj. man dama ko doon xex ba lolo ma génnee ci lamb chaque jour je dénoncer pourquoi ñu dag assurance suñu kase ñu dag assurance suñu suñu suñu suñu suñu licence te mënuñoo bu ñu feebaree duñu faju suñu mbokk buñu ñu duñu faju lolo amul lenn lo ci revendiquer lu di wër ci plateau yi naan je suis le président des lutteurs te mbëri yi nga jiite matuñu cinquante personnes même ay carte membre mëno ko jaay mëno sax woté assemblée générale réunion sax du am man lolo moo ma génnee ci association bobu kon yow ñew da nga war a noppi amul lolo wax exemple bi nga warona taxawé moy nga fexé ba lamb nga yobou ko fenn mbeuri nga gis sen bop ci sa doxalin mais amul lenn lo doxal pour mbeuri gis sen bop lu bu autorité yi ngeen lambar lambari dem ñu jox leen xaas ngeen lek ko ñëwaat mbëri ndaw yi di gën di dee amuloo lenn lo apporter pour mbeuri bi maama Lamine kérok toogee di wax da nga warona rus ñaata mbeur ño fi nek mu di sonu di dé lamb amalu leen benn njëriñ ñu bëri seen giiru dundu ngeen diko gis diko dégg Tay birum soulay wax wax bu am importance ngeen war ko jël dans le sens positif yow nga ñew genn naan ay na dina lijjanti courant bi courant bi bam mu chéré day tay nga jàkkaarloo Macky Sall est-ce que mos ko wax courant bu cher mus nga leena wax courant bu cher yeen bari kan mo ci mos genn di souci wu ci courant askan bu cher wala courant bu yomb wala ndox mu cher wala contrat bu ñu signé wul tey nga bëgg a jàkkaarloo ñoom naan da ñuy wax ay courant bu cher liñu xam dafa bari il faut ko ngeen noppi vous n'avez rien à dire à leen lenn lu reprocher reproché Soleil, Souleye li c'est wax ci son opinion te loolu la askan wi bëgg moo tax askan rupture boobu la ñu bëgg li am solo moy lamb cëram bi mu am ci projet bi am ko ci Sénégal ak tamit li ngeen wara def di fay ay impôt li ngeen wara def yéen li ngeen wara def mu wara dem ci état na dem état wara def ak ñëw ci loolu lañuy développer secteur mais du wër di ñaan ak a ka saraxoo ko ay diwul xamantena ak mom ak relation bari ndaw yi di gën di sonu gën di gën di avancer du fi amé man looloo ma génne ci association bi jël association politico ko def ko association des VIP mbëri ndaw yi di dee di sonn ngeen di dem ak yéen autorités yu mag yi di di di di di fa lëkkaloo mbëri ndaw yi di sonn di dee di bëre ba sonn duñ am dara. ñaata mbër ñoo fi dee ñoo fi gàddaay ñoo fi jaar ci gaal yi ñoo fi jaar ci Nicaragua ñoo fi jaar ci géej ndax ñàkk lu ñu am yéen kese yéen ay am ba pare ngeen taxaw naan da ngeen défendre làmb yéen. griot traditionnel Bécaye Mbaye yéen ñooñu ñee nag ngànk làmb ji di ci lekk ay burgeel mi mujjee ñëw barki démb sax li muy am ci làmb bëri du bëree dix ans mënu ko buur géwél barki démb na ñëw ci làmb di wax kii nu mu tuddee Fadam 2 tey boo dégloo Maama Lamine ñaata at la bëri munul am lu mu takkee tubayam bay jooy naan bàyyi na làmb mbëri dañuy feebar ngeen di leen seetaan di leen def lu nekk di leen daw bu représentation taxawee bu njariñ génn ngeen na taxaw ne waa ñun ñooy président des lutteurs il faut ngeen arrêter yow moom ngir boroo xamante nañ bu baax a baax on se connaît très bien fexeel sa association boobu mu amal njariñ làmb fexeel association bi nga organiser ko ngay woote ay réunion nga jaay say carte de nga élargir ko su ko defee ngay poser ay acte ngeen di jàppalante yéen yéen mbër war na am problème mu vingt mille francs ba yaayam di génn àdduna te ngeen am te ngeen ne yaay association yéen xanaa sax war ngeen mën a def social seen biir war ngeen mën di natt di cotiser di dimbalante seen biir yow secteur bi nga nekk li nga jiite mënoo leen a sax satisfaire kenn gisul benn njariñ ci jiit bi nga jiite association des lutteurs ba pare nga taxaw naan ay ceci cela làmb nii naa non arrêté leen jaa ngeen jëf